¡Vaya! الذي يحويه من الفضل ما حوى وفاء بلا غدرين عقل بلا هوى وجود بلا منع وعلم بلا تغيير وحسوسها ثيابه فلا فضل إلا واه وحسوا به ولا خير إلا فيه جماع كتابه كتائب إسراء علت لركابه وفود ملوك الآر دلادت ببابه lii ñuy bëgg a def yal na saxal ci réew ubbi gii ñuy bëgg a ubbi rawdu góor gu tedd gii di maam ahmadou ndaak sekk radiyallahu anhu yal na ubbi jàmm ci yal ci ak ci bitim ak ndaw ak ndaw yal na ci kilifa yi diine yi jiitu. sëriñ baa ngi ñaan yal na ci kilifa yi diine yëpp jiitu. mboolem fu kilifa diine nekk ba senegal daj. mboolem fu kilifa diine mën a nekk ba Sénégal daj. yal na nga ca jiitu. sëriñ baa ngi ñaan yal na nga ca jiitu. lépp loo jaboote. lépp loo jaboote mu nekk ci réew mi baa ci bitim réew. yal na ca topp. yal na ca topp. aada yi. sëriñ baa ngi ñaan kilifay aada yi. ndax gouvernement kat. ndax gouvernement kat. dina dimbali lislaam dina dimbali lislaam ni ko lislaam di dimbalee ni nag sëriñ baa ngi ñaan ubbi rawdu góor gu tedd gii tëdd yàlla na ñëpp yëg ni am dolliku na ñëpp yëg ni ci barkeb ubbi gi ñu ubbi rawdu maam Ahmadou Ndaak Seck yàlla nay defaru ñëpp barke yonent bi seexu canaba seexu canaba yàlla na ci jiitu yàlla na ci jiitu ak lu mu jaboote ak lépp lu mu jaboote kilifa yi mu wuutu. kilifa yi mu wuutu. jàkkaarloog ñun duñu seere. ñun di ñu seede. yal na seen yërmande dolli ko. yal na seen yërmande dolli ko ci war may ubbi raw du maam Ahmadou Ndaak Seet. ba ñu xam ne dolleeku na. ba ñu xam ne dolleeku na. Baye Cheikh Ahmad Tidiane Seck mi yàlla dogal mu tàmbalee ci moom. ak Cheikh Ahmad Tidiane Seck radiyallahu anhu mi nga xam ne moom la yàlla dogal lii tàmbalee ci moom. ak xol ba ak yéene ak kilifaam ak njabootam. ak xol ba ak yéene ak kilifaam ku ne la cay sa wàll yàlla ko jot. kenn ku ci ne. bàyyi seexu Amadou ngi ñaan la cay sa wàll yàlla na ko jot. njaboot gi liggéey liggéey bii. njaboot gi nga xam ne ñooy njabootu maam Ahmadou Ndaak Seck di taalibeem yi liggéey liggéey bii. kenn ku ne doom nga sët nga. kenn ku nekk ci ñoom doom nga sët nga. dox nga la nga war a dox. dox nga la nga war a dox. ci yiw ak rafet. ci yiw ak rafet. jëf la nga war a jëf. jëf la nga war a jëf. ci yar ak i teggin. ci ak i teggin. séddante ci seen biir. séddante ci seen biir. te kenn desu ci ginnaaw. te kenn desu ci ginnaaw. kenn ku ne. kenn ku ne. sët la. sët la. rafet na doom la. doom la. rafet na liggéey bii. liggéey bii. billaahi. billaahi. yal na ko yàlla gërëm. yal na ko yàlla gërëm. maam Ahmadou Ndaak mii tëdd di ñu dégg te di ñu seede. kenn wérantewul jomam. kenn wérantewul jomam. kenn wérantewul fullaam. kenn wérantewul kenn wérantewul taxawaayam. kenn wérantewul taxawaayam. kenn wérantewul ak sellam. kenn wérantewul ak sellam. bi muy wuy ji Seydina Seexu Amadou. bi muy wuy ji maam Seydina Seexu Amadou. amoon na lépp. amoon na lépp. xam-xam yëpp. xam-xam yëpp. doon jàngale. maam Ahmadou Ndaat Seck da ko doon jàngale. feebar yëpp. feebar yëpp. da ko daan faj góor gu tëdd gii da ko daan faj di dimbalee ci wërsëgam di dimbalee it ci wërsëgam yor ak njabootam yor ak njabootam dugg ci tariixa bi dugg ci tariixa bi ki ko ci dugal woote ko ki ko ci dugal woote ko ngir yàlla ngir yàlla muy Seydina Seexu Amadou muy maam Seexu Amadou mu wuyu ko maam Ahmadou Ndaak Seck radiyallahu anhu wuyu ko ba muy dem ba muy dem léppam la séddale léppam da koo séddale yàllaa ko delloosi yàllaa ko delloosi waaye bàyyiwul woon xelam waaye moom deful woon xelam ci dellusi moom magoo nit ki mu doon wuy ji. moo nit ka mu wuy waaye woo na ko ci yàlla. kon kooka da koo woo ci yàlla. mu wuy ji yàlla. maam Ahmadou Ndaak Seck wuy ji ko ngir yàlla. bi muy dem bi muy dem. ak bi muy ñëw. ak bi muy ñëw. ak bi muy sañc Cenaba. ak bi muy sañc Cenaba. juróom fukki at ak benn. juróom fukki at la ak benn bi muy sañc Cenaba moom la am. dëkk fi juróom fukki fukki fukki at ak juróom ñaar. dëkk fukki at ak ñaar. yu tegal ñetti weer yu tegal ñetti weer. يرنا جاسي يرنا جاسي في سبيل الله في سبيل الله يرنا كروس يرنا كروس في سبيل الله في سبيل الله جلنا غودي جلنا غودي غير يالله غير يالله لغينا بچك لغينا بچك غير يالله غير يالله يلا نينا يلا نينا لا يستوي لا يستوي من انفق من انفق من قبل الفتح من قبل الفتح وخاتل وخاتل من الذين من الذين anfaqu anfaqu min baxdu min baxdu ak gudd na ak gudd na nañu taxaw foofu nañu taxaw foofu kii la ñuy bëgg a la ñuy bëgg a ubbil raw doom bii kenn ku ne sa loxo caabi la kenn ku nekk ci ñun ñi fi ne sa loxo caabi la nga jàng fatiha ngeen jàng fatiha ñetti peri salaatul fatihi jàng ñetti peri salaatul fatihi ñetti peri jawharatul kamal ñetti peri jawharatul kamal tëjee ko tëje ko. salaatu bu la bu la bu la jàppandi. salaatu bu jàppandi. loolooy caabi loolooy caabi ji. bu ñu ubbee ba noppi bu ñu ba noppi. Serigne Jibee ngi nii Serigne Jibrilu Seck ngi. mooy sunu kilifa mooy sunu kilifa. moom la sëriñ bi yebal moom la sëriñ bi yebal. ak sëñ Ngañ Sarr alaaji Ngañ Demba Sarr porte parole mi ngi nii. lu ñu santaane lu ñu santaane. ñu def loola ñun ñu def loola. waaye nag waaye nag. caabi ji moom caabi ji moom. kenn ku ne kenn ku ne. sabaaraam caabi la. jàngal Fatiha jàngal Fatiha. ñetti peri ñetti peri salaatul Fatiha. jàng ñetti jawharatul Kamal. ñeenti jawharatul Kamal. ñeenti jawharatul Kamal. ñetti peri salaatul Fatiha. ñetti peri salaatul Fatiha. loo ko tëjee baax na loo ko tëjee baax na. muy caabi ji muy caabi ji ñuy ubbee rawdu bi. فكم من غوي في بطالة مفسدي فكم من غوي في بطالة مفسدي أناب به لله بعد تمردي بنفع كتاب أو بوقع مهندي وكم آية دلال باسق أحمدي من الطوع في العجماء والنطق في المروي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن صاحبيه بعد تعرف قدره عليهما تعرف قدره فهذا ينقي لي رسالة صدره وهذا بإذن الله يخدم أمره وزيره جبريل وميكال إثره فأهلا بشمس بين بدرين في جوي الله

nangu na ko teyit xéewal yi dana bal dal nu na bum nu moy waaye bàyyi jibrilu sek cig yaatalam ak bëgg njaboot dégg ngeen na ko njaboot ñaane ci biir mu ni lépp lu ngeen ñaay may lañ leen ko ba mu jeex noonu nooy seeni kilifa ñoo leen doon jëfloo kon bu ngeen ni yeewul du nu dellu ca biir nanu ànd ak yéen nu ngeen ko bëggee nu defal leen ko ba jataay ba yegg nu soog a dellu recevoir gan ñi bàyyi jibrilu yàlla na nga fi yàgg kon kaddu gi dañu koy jox Baye Serigne Diop mi nga xam ne mbooloo mii di ahlu Cheikhu Canaba amee woon liggéey bii nga xam ni benn la ci liggéey yi ñu yéene Canaba ca fas yéene cee mu yëkkati kaddu su yeggale nag incha allahu jël caabi jébbal ko kilifa yi kilifa yi tontu ko sogo ñaan ñu yëkkati jataay bi kon ñi ngi sant di gërëm bu baax a baax déclaration bi nga xam ni nag war naa jóge ci xalifa bi jaar ci làmmañu porte parole muy information bu ama am solo àdduna bépp war ko dégg su boobaa daana ko ci déglu ana Mouhamad Mboob kay jige porte parole boo ki nga xam ne mooy Baye Serigne Diop yëkkatee kàddu ci turu ahlu bi ba jébbale caabi yi incha allah nu déglu porte parole balay Serigne Jibrilo ñaan incha allah. Baye Serigne Hassan Seck xalif bi bi nga xam ne mooy xalif général Tidjani Canaba di sunu baay bi di sunu Serigne bi yal na ko fi yàlla yàggal. di serigne jibrilu sek mi ko fi tewal ak njabot gi mu andal yeb tabarakallah mu melni dañuy ñëkke sunu kaddu wax alhamdullilah rabbil alamin ndax yalla dimbali nañu comme niko serigne sëriñ sar waxe legi liggéey bo xamni ñenti at ñu nekk ci nam nabi ciono bu ne daj nañ ko ci ngir wut sunu ngërëmal serigne lool rek lañ doon sakku té seeni kaddu wané na ni bëgg ngeen gëreem ngeen buñ ci yemoon buñ ci yemoon dong doy na kon noo ngi naanal bàyyi sëriñ Xasan sekk yàlla na ko muurloo yàlla na yàlla guddal aw fanam wax naa ko bërki démb ni ko keroog bi ñuy teg xeer wi bàyyi Cheikh Tidiane jox ñu ndigal yàlla daa dogal ni moom teewoon na jël alalam def ci bi ñuy te xeer wi bàyyi Cheikh ni ko demal nga magal sëriñ eh, bàyyal sëriñ Modou Rokhaya Seck ñoom ñaar ñëpp fekke nañ ko bàyyi Cheikh dem aljana yàlla yàlla yokk leeram bàyyi Abdourahim Seck ñëw moom daal di feddali li nga xam ne mooy ndigal li Baye Ass bi mu ñëwee dafa ñëwaat feddali ndigal li daal na ni ma dinaa leen jàppale ci biir ak ci biti ndax yàlla moom la dogal nag ndam li ak yeggale gi mu fekkee ko kon moom lay muuram kon yàlla na yàlla guddal aw fanam te may ko wér li tax nag ñu bëggoon a def jataay bii mooy sant ñi nga xam ne ñoo ci taxaw ba mel nii mooy taalibe yi mooy njaboot gi nga xam ni guddi ak bëccëg yow sëriñ Jibrilu seere nga ci xam nga ci lu bëree baree bëri ci jamonoy bàyyi euh, sëriñ euh, Abdourahim woo nga ma mu jóge Thiès ñu waxtaan ci liggéey bi lu sori nga tegaat ñu ci yoon ñaanal ñu te bañuy tambali lang ñu waxoon loolu dañoo yokk pas-pas sëriñ jibi da nga ñu ñu woon mam amari ndaag moy suñu ciatal xeej bu duggé rek lépp dugg na te loolu am nañ ci njort lu wër ni fi ne fi ñu dugalee baax na it ndax niko ko sëriñ ngañ waxe koo ci toolu yonent bi la ko def bu yonent bi aayee moome ñu xaj-xajal ko ci dugal ko ci ah. yàlla na jaadu na kon am nañ yaakaar ci li ñu def mbooloo mi ñu àndal nag ah. njaboot lañ ci njabootu Seexu Canaba ah. waaye kenn ku si ne yaay sa baay yaay sa maam li ñu am ci yéene ci Canaba mooy Canaba fépp foo xam ni taaru diine ji yegg na fa taaru diine ba yegg xabru bi dañ koo tàmbalee dong waaye bëgg nañu am yeneen yéene yeneen sëmb yoo xam ne da ngeen ñuy ñaanal may ñu ndigal ñu mottali loolu loolu ñu ngi koy ñaan sëriñ bi ndax buntu dëkk bi am nañ ci projet bu rëy boo xam ne njaboot gi waxtaan nañ ci ba noppi bu féexee ba gàmm gi jàll ñu ñëw waxtaan ceeg moom mu may ñu ci ndigal nee na porte parole nee lu ñu ci bëgg wax nañ ko ko te dina am incha allahu rabbul alamin noonu lañ ko bëggee bëgg nañ daal projet boobu balaa yàgg ñu sumb ko balaa yàgg mu yegg kon taalibe yi looloo nekk seen xol ñi nekk ci biir réew mi ak ñi ñetti biti réew bi ñuy tàmbali xabru bi bàyyi ji bi nga may ma tuuti rek ma sant sëriñ daara yi sëriñ daara yi ah. buñ daan tàmbali di euh, liggéey ñoom ñëpp ay wàccee alxuraan kaamilu alxuraan di ko jagleel maam Amari Ndaaj ñun ñii di njaboot gi fii lañ daan nekk lal fi suñu basang di jàng alxuraan di wàcce kaamil di ñaanal maam Amari Ndaaj kon Eh, Mohamed Cissé ngi né tok Serigne Ibrahima Sarr Diop Serigne Modou Sarr mi nga xamné moy trésorier té yor alal metti lol mu di jambar ndax lim ñu yoral kër gi yépp la ko yoro waaye ñëpp a ci mom Serigne Baye Djibrilu Seck sant Seck tax ko tekki kalam tak ko ci ndigam mok Serigne Ibrahima Alpha ak Serigne euh, Baye euh, Abdou Karim mu Baye mu Serigne Abdou Karim Baye Mbaye Serigne Baye Baye Mbaye mu Serigne Abdou Karim ñoñu dañu jël seen laxasay tak ko seen sant Seck taxul ñu ànd ak taalibe yi ak Serigne Ndiaga Seck Muxtaar mu bàyyi Cheikh Tidiane ñooñu nag jar nañoo sant jar nañoo gërëm ak njaboot gi nga xam ni ñooy njabootuk Baye Ibrahima Ndiaye di sa njaboot bi ñuy tàmbale lii seen kër lañ ko sose ñu am pas-pas lool bokk ci ñi nga xam famille yi gën a dajale alal dugal ko ci xabru bi kon ñooñu jar nañoo sant jar nañoo gërëm su ma doon lim taalibe yi du ma mën a lim ñëpp waaye damay jukkat ñi nga xam ni ay élément lañ de base yoo xam ne ñoo tax kuréel gi taxaw ba liggéey bi mën a yegg fii waaye am na ci ay jàmbaar yoo xam mënuñu leen bañ a tudd sëriñ Alaaji sekk bu bàyyi got Seck def na ci plus de trois millions ci xabru bi loolu jar naa wax sëriñ bi mu ñaanal ko yàlla am na ku ñu naan sëriñ euh, Diagne sëriñ Moustapha Diagne sëriñ Pape Abdoulaye Mboum mais moo fexe ba mu jël alalam duwal ko ci ba mu ko yëgee daa cee kontaan lool jël ci téeméeri junni def ci ñi sant Seck ñëpp ñi ci def seen alal ñep bëggoon nañ leen tudd waye tan bay xat waye sant nañ ñep gëreem nañ ñep mu may wax ni Serigne Omar si li ma yor ni moko doli wat ci barkelom ku xo xamni bañu ba joxe nga 1 million mu dem ba yegg ngay wat am nga yene kon nak momit jarna sant Serigne mandjay Kebe tamit kazalika ñi yoron liggéey bi di Serigne Ipam ndjay ak Serigne euh, ndjay euh, sëriñ Mamadou Ndiaye Mamadou Lamine Ndiaye sëriñ Lamine Silla comme ni ko euh, Baye Diop waxe ñooñu tamit sëriñ waagaan moo xam moo tabax lii ba mel nii ñooñu tamit amel nañ ñu njukkal amee nañ lañ sant sëriñ yaa euh, soxna Yaamati Cissé ak soxna Say Seck moom it amel nañ leen cant ñooñu dañ doon togg ay bernde di indi ci xabru bi di wéttari sëriñ Maam Mor Seck mu sëñ Talla Xaar ba ñu tàmbalee ba léegi berndeem boisson lu sedd ataaya lépp day indi kon defal na ko Serigne Thiénaba moom it jar naa sant jar naa gërëm su ma sant su ma santee daal mën naa manqué waaye nañ xam ni daan dajul suuf ñu ngi sant ñëpp kontaan nañu sëriñ Jibrilu yal na la fi yàlla yàggal yàlla yàlla wéral la ndax am na nañu yéene alhamdulilah nee na tamit ñu ngi sant tamit ñi ngi doon fournir matériel amul kenn koo xam ne yoral nañ la benn dërëm loolu sant jar sant yàlla kenn gaañuwul kenn xurikuwul kenn dara alhamdulilahi rabbil alamin rek lañ mën a wax kon yàlla nañ sumbaat yeneen sumb ba yeggale ko ci jàmm jébbale caabi caabi jaa ngi nii nag monsieur le maire mi ngi ci jataay bi bi ñuy tàmbali am na loo xam ni kenn mënu koo bañ a tudd ndax ba ñuy tàmbali daa xatoon loolu te métti mu taal ay otoom def ci gasoil ñuy wër tournée ci ndigalu Baye Cheikh mu defal ko Serigne Thiénaba kon jar naa seereel moom monsieur le maire yàlla na yàlla defal ko ndam ak ñu mel ni ñoom tabaarakallaa te ne ci biir dëkk monsieur Abdou Ngingue tamit teraanga yu mel noonu monsieur Omar Sy tabaarakallaahu yàlla na yàlla gërëm ñëpp kon Serigne Jibril Baye Jibi nee na ba pare yëkkatiwaat ay teraanga defaat ko ci waaw ba pare yëkkatiwaat ay teraangaam defaat ko ci bii nga xamee ne élection yi mujj dama ne politicien bu ëpp loo ci def rek yaay gañe yàlla dogal loolu moo ci ëpp lu mu ci def yàlla na yàlla gën koo dëgëral tabaarakallaahu ñi juge ba Kajoor ñi juge ba Gosaas ñi juge ba fu ne sëriñ Talla Xaar ñang tabaarakallaahu jàmbaari maam Amari Ndaag moo ko sëriñ Mbay ñi jar nañoo sant waaye sëriñ Talla mu bàyyi sëriñ Saada mu ngi ci jataay bi moom it jar naa sant ndax déplacement bu rëy la def ñëw jata jata teewal jataay bi sëriñ Njaga Sekk sëriñ alpha bu canaba kajoor bari ki démb teraanga ju bari la indi def ko ci xaddu mam amari ndat kon nak defal nako ko pap sek murtada sëriñ pap sek bu mburi ñing koy sante di ko ci mam amari bu bay bubu lamp bu jar 1 million la defal mamam noonu ci kaw koku tamit jarna ñaanal jarna sante buñ ma rek tabarakallah lu bari recc commission si ay jambar lañu bi xabru bi démé ba taga tembe ñu néew doolé ñu ñëw renforcer ñaani million Serigne Baye jobu ko jité koku tamit jarna sante jarna jar naa ñaanal Serigne Ndiaga Seck historien ba ñuy tàmbali maag moom la won ak Baye Jibi nek ci mbéd yi di wër kër yi buntu par buntu yalla dimbali nu ñu wër kalifa yépp ñu joxé seen digël ñaan yalla yalla yàlla defal leen jamm tabarakallah ñuy gërëm ñëpp eh. Serigne abdallah Aziz tamit mënuñu ko baña a ndax bañu ñu daf ñoo wax wax ju reuy ren di dafa dafa ren di gàtt toggal nu ko ni yàlla gërëm na leen ci ñëw gi ngeen ñëw ñaanal ñu yëkkati cent mille francs ni lii nag def ma ko ci xabru bi def leen ko seen essence waaye yëkkatiwaat cent mille francs def ko ci xabru bi ni maag yéen ba keroog muy jeex barki démb laa ko mu ñaan kontaan nee na lu ñu sumbaat dina ànd ak ñun Baye Assane Seck daal Serigne Abdou Karim sekk mu Baye Mbaye Seck moom it ñaan na gunge ñu ak kattanam gunge ñu ak alalam yal na yàlla dëgëral ko yal na yàlla guddal fanam Serigne Cheikh mu bàyyi mu Serigne euh, Khalifa Bousso Serigne Modou Seck Rokhaya ñëpp boo dee lim cekkeen gépp dugal nañ ci seen alal Serigne Adama sekk mu bàyyi taala xaar moom it tabaarakallah yal na yàlla gërëm ñëpp rek Serigne As borom ndigal macha allah yal na yàlla gërëm ñëpp rek. jógal nga yëkkati caabi jox ko kon alhamdulilah li nga xam ne moom lañ bëggoon mooy sant ñëpp gërëm ñëpp yëkkati li nga xam ne mooy caabi ji. yëkkati li nga xam ne mooy caabi yi symboliquement jébbal ko li nga xam ne mooy bay Serigne Thiénaba mbokk yi ngeen seede nii bi ñu ne suba la gàmm atum 2022 ahlu Cheikhu Thiénaba ci ndigalu ministre bi nga xam ne moo di Baye Sy Ahmed moom moo toogee jotaay bi jamono boobee nag la xabru bi yeesal gi nga xam ni kilifa yi ci joxe woon ndigal boobee la yegg ahlu cheikhu canaba ci loxol Baye Serigne Diop àndandoo nañu yëkkati caabi ji jox ko Baye lu sekk mu borom yaaram moo fi bàyyi Baye Serigne Yassane Seck jox na ko porte parole El ngañ Ngagne Demba Sarr El Hadj Ngagne Demba Sarr delloo na ko Baye Jibrilu Seck ni ko yaa ko war a yuti sa baay yaa ko war a yuti kala yebal kon nag xabru maam Ahmadou Ndak na ko mam bëggee woon demee na noona ci loxoy kan la sottee ay sëti boppam képp ku ci laal yàlla nay sa wërsëg barke yonent bi loxo yi bàyyi ñu déglu El Hadj Ndeye na yàlla fay la. daraja yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam. képp ku fi toog. te am cofeel ci maa Ahmadou Ndack Seck daanaka jotaay bi xawoo ko at. képp ku si toog te am cofeel ci maam Amary Ndack Seck daanaka jataay bi sax xawoo koo attan bu ngeen seetloo sànq ba léegi naaj wi dañuy fang maa ngi wax ma ne sànq ba léegi naaj wi daa tàng jër waaye bi ne caabi jaa ngi nii rek daa niis maam Amary Ndack Seck yàlla na yàlla fayal ñu ko gis nga cooli cooli mooma waa cooli cooli mooma waaye jàpp naa ni ñi tegoon xeer wi am na ndam Baye Cheikh Ahmad Tidiane Seck mi joxe woon ndigal am na ndam Baye Abdourahim mi ko wuutu woon am na ndam Baye Seexu Ceneba Baye Serigne Assane Seck am na ndam waaye jàpp naa ni sëti maam Ahmadou Ndaak Seck yu baax yi toog njabootam gu tedd gii toog am nañ ndam de waaye jàpp naa ni lu ñu woon seen njaboot gii dina dooleeku tey ndax nga am njaboot ñu liggéeyal le liggéey bu toll nii bis ñëw ñu jël caabi yi teg ko ci sa loxo yaakaar ëpp ko nag yaakaar ëpp ko am na ñoo xam ni tey ji ku leen yeewaatoon ci xabru yii ne leen sëti maam Ahmadou Ndaak sekk ya nga xam ne seeni maama àndoon ak maam Ahmadou Ndaak Seck defal nañ teraanga ju toll nii cene ba wallahi duñ ko gëme kon ñoo ngi ñaan ca barke bis bii bàyyi góor a mbeng mi nga xam ni liggéey na lu ne ci jumaa ji ñun ñëpp doon ñaan yàlla lii mu fekke ko yàlla dogal fekke ko waaye fekke na ko ndax fu toog rek tudd ko yàlla na yàlla yeesal yërmande ci moom bàyyi sëriñ yalla na yàlla fay leen barke yonent bi sallallahu alayhi wa ñëpp kontaan nañ waaye di sant di gërëm suñu mag El Hadj Pa Abdoulaye Mboub lu tax Baye Seexu Amadou dañuy asalaamaaleykum mu ne asalaamaaleykum yem ci man ne ma Mouhamed doxalal te bu ne ma woon noppil ma noppi kon tabaarakallaahu yàlla na yàlla fay la barke yonent bi ndax nag nit ku nekk si kilifa doo nga am na waa nit ku ne kilifa am la am bu ko defee ñu déglu porte parole El Hadj Ngagne Demba Sarr mi ngi wax ñëpp asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu islam bi yëpp. bëggoon a waxtaan. li ñu bëggoon a waxtaane. waxtaan nañ ko fee waxtaan nañ ko fee waaye yàlla dafa dogal foofa ñu ne woon bu ko média yi jël ndax xabru baa laajul loolu. wante li xew. waaye nag li xew. maam Amadou Ndaak. maam Ahmadou Ndaak Seck. kenn du moom kenn du moom. daa am information bu ñu dab ci biir xabru. dafa am information bu ñu dab ci biir xabru bi. te moom moo waral information. te maam Ahmadou Ndaak Seck moo waral information bi ñëw. mu dal ci bisam bi bay sëriñ Assane toogee bi bàyyi Cheikh Thiénaba bàyyi sëriñ Assane sek toge professeur souleyman Dia secrétaire particulier bu serigne bi dafa defone ben document ba commencé ci mam Ahmadou ndak sek ba ci bay Cheikh Ahmad Tidiane khalifa bu fi jaar ling fi jaar ak ni nga jotté diine ji loola mo ngi ci bir document bi ñeen fukki réew ñu yóbbu woon ko ci ñeen fukki réew. ak juróomi réew ak juróomi réew. ñëpp xam nañ Canaba ñëpp xam nañ Canaba. ambassadeur Mauritanie. ambassadeur Mauritanie. bañ fa demee bañ fa demee. mu ni man xaw ma woon ni. dafa wax ni man xaw ma woon ni. kilifa gu toll ni kilifa gu toll ni maam Ahmadou Ndaak Seck ci réew mii. ndeke mi ngi ci biir réew mi. wante mu jox ay conseil waaye mu am conseil yum ñu joxoon moom ambassade Mauritanie. mu ne histoire bii ne histoire bii. defar leen ko defar leen ko. ngeen yóbbu ko ONU. ngeen yóbbu ko yóbbu ko Union africaine. yóbbu ko Union africaine. yóbbu ko OCI. yóbbu ko OCI. juróom fukki réew ak ñaar juróom fukki réew ak ñaar. yi ngànk diine ji yi ngànk diine ji. nañ ko fa yóbbu nañ ko fa yóbbu. suñ ko fa mënta buñ ko fa mënta yóbbu. nañ def document nañu defar document bi. ñu indil ma ko man. moom dina ko yóbbu. leetar yooyu demoon leetar demoon nag. président Algérie da cee jot président Algérie da cee jot. jàngat maam Amary Ndak jàngat maam Ahmadou Ndak Seck. xool histoire xool histoire maam Ahmadou Ndak Seck. mu dugg ko lool mu dugg ko lool. jox ko ministre affaire religieuse mu jox ko ministre affaire religieuse. mu jàngat ko mu jàngat ko. ba téye lam ca am ba téye ca am. yóbbu ko Aynu Maadi yóbbu ko Aynu Maadi. jox ko xalifa Cheikh Ahmad jox ko xalifa Cheikh Seydi Ahmad Tidiane ba fa ne. xam ne ba fa ne. nga xam ne ba fa ne. moo yilif Tidiane moo yilif mbooleem taalibe Cheikh bu nekk ci adduna bi. loolu moo sababu woon. looloo sababu woon. xalifa bi ñëwoon xalifa Seydi Ahmad Tidiane yi ziar si woon maam Amadou Ndak ziar si woon Baye Serigne Assane ziar si maam Amadou Ndak. bi ñuy defaraat lettre gàmm yi bi ñuy defaraat lettre gàmm yi. professeur bindaat lettre bu baax professeur bindaat lettre bu baax. Baye Serigne bi yónni waat ñu ci ambassade. Serigne bi yónni waat ñu ci ambassade ba. ñu jox ko ambassadeur. ñu jox ko ambassadeur. mu kontaan ci lool mu kontaan ca lool. xool lettre bi xool jàngat ko jàngat ko. càmbar ko càmbar ko. defar rapport defar rapport. ci kër maam Amadou Ndak ci biir kër maam Amadou yónnee waat ko président yónnee waat ko président. président nag moo jël dogal. président nag moo jël dogal démb démb ca ngoon ca ngoon

fukki télé ak benn la ñu àndal. dañuy def eh, dañuy def euh, programme bi direct. te dañuy def programme mu Thiénaba bi ñu ñu waxal leen kan mooy maam Ahmadou. ñu waxal kan mooy maam Ahmadou Ndack Seck radiyallahu anhu. professeur Souleymane Dia def na ci document. professeur Souleymane Dia def na ci document. document bi traduire nañ ko en arabe. document bi traduire nañ ko en arabe. sëñ Madické mais dem na sotti na ci fanweeri document. Serigne Madické bu Serigne ji bi dem na sotti ci fanweeri document. kon suba ci 10 heures. ci 10 heures. Baye Cheikh Thiénaba nee na Baye Cheikh Thiénaba nee na Serigne Jibrilu Serigne Jibrilu Seck ngi ak njabootu maam Momar Tall ak njabootu maam Momar Tall ak gépp bu fa kenn manqué bu fa kenn manqué ndax maam maam Amar Ndaak moo aye ndax maam Ahmadou Ndaak Seck aye te gàmm gi ñëpp ko bokk te gàmm gi ñëpp ko bokk Rox Serigne ngi ak lu aju lu aju ci kër maam ma dikkee ak nu mu ci ajoo bu leen lu aju ci maam Ibra Penda ak noo ca ajoo ko sëriñ bi nee na gan googu gan googu moomu ko moomu gee ko moom monsieur le maire yaa fi googu yow lañ koy bàyyee nga wax ko sous-préfet yéen a xam nu koy jàllalee ba mu mën a jàll sëriñ Ba Diop Seck sëriñ Omar information boobu ni mu toll ci kër gi am dayo ci kër gi te sëriñ bee ma wax ne ma bul defati lu ump ump mbër si comme yaa ko fi teewal comme yaa ko fi teewal kon kaddu gaa ngi kon kaddu gaa ngi noonu soo demee ne ko alaaj Omar yëg lii lii fa mu mën cee teew mu mën iri yi aju ci kër gi ba bitim réew ba bitim réew sëriñ woo njaboot gi ne ci biir kër gi ci biir canaba ak dëkk yi canaba commencé ko ci média bi commencé ko ci média na fi fekk mbooloo ñu waxtaan moom professeur Souleymane Dia def na document bu ñëwee ñu waxtaan jox ko document bi saafonteeg moom ndax suba ndax suba nee na bu jógee fi day wat aéroport Li dong nga ko yëkëti day demaat aéroport suba wat ndax conseil des ministres dimanche la té da ko wara a serigne Abdou Wahab jëf lu xew nga ñëw togal nga fi sama waye mam mag tay tay da tey tay da jéngu ne Abdou demal waye maa ngi ci sa ginnaw ni nga def nag baax na wante moom nag waaye moom nag dafa mel ni daa mel ni daa xaar ba bisuma mu dàkk ko mu dàkk ko ne demal waaye maa ñëw waaye ñu leen di sant bu baax Baye Serigne Baye Serigne lay sant Serigne baa ngi lay sant ak ñi nga ànd ak liggéey ak mboolem ñi nga di liggéey daa metti surtout fii ci Canaba ak li ko wër lu ne di ko dégg waaye gis nga liggéey résultat doo nga ci am solo am ngeen résultat ñu ngi sant Baye Diop ñoo ngi sant Serigne Baye Diop mu wàcce ko ci njabootu Baye Cheikh ndax lii ci Baye Cheikh la commencé mu rafetal ko lool moo tax alal joo moom da nga cey taxaw ba mu rafet ndax bu ëllëgee kenn xamul kuy mujje Baye Diop jërëjëf njabootu Baye Abdourahim sëñ Ibrahima ak i rakkam njaboot gaa ngi leen di sant ndax seen Baye joxe na ci lii ndigal jàpp ci mbooleem ku sant Seck te moomoon liggéey bi te nekkoon ci biir liggéey bi

jàppale na ko ci liggéey bi. ci ba lii rafete nii ba lii rafete kon patron bi ko doon liggéeyloo kon patron ci ndigal kon ñaanal ko ci barab bi ndax it mu man ko. ñu koy sant ñu koy sant ñu ngi koy gërëm. am ngay taxawaay ci liggéey bi sécurité bi doy na sëkk yàlla na yàlla def jàmm ak sutura ak xel mu dal asalaamaaleykum maam borom yaaram Serigne Ahmad Cissé mi ko séqal ñëpp Serigne Amath Dia. sëriñ Amadou Seck fa tabaarakallaahu euh, sama nijaay borom jaataar sama nijaay Ibrahima Alpha borom jaataar fa tabaarakallaahu Ablaye Sey sëñ Ablaye Sey fa tabaarakallaa sama nijaay sëriñ Ousseynou Ndiaye ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen di gërëm di leen sant mi ngi leen di ñaanal yàlla professeur Souleymane Dia jërëjëf Sulaiman Dia ku bax ngi du fekki muk du fekki mukk xadrama amr xadrama dag bi lu koy wala lu koy wala wala lu koy wala lu koy dina ko dox dina ko dox ba rafet ba rafet te suñ te buñ toge dañ koy fàtte dañ koy sax waye man nak sama làmmiñ daari ñooñu ñooñu man lay juqi diko wax ci mbolo yi bariwuma ay wax wax nak dama bañ lu ñaaw man dama bëggul lu ñaaw ñu tàllal loxoy wax amin cheikh jibrilu sekk gi ñaan آية سرين إبراهيم كايرة سرين بانكو سانت بو باخ من الضوع في العتماء والنطق في المروي صلى الله عليه وسلم boo waxee rek ma dàmbale ah aoudu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alamin la ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin di sant maam Cheikhou Thiénaba Amary Ndack yal na yàlla fayal na ko ci barkeem lañ doon liggéeyee ci barkeem lañu yeggale nañu ko sëriñ Ndiaga Muxtaar waxe woon ba ñuy tàmbali tàmbali leen maam Amary Ndack mooy yeggale jàmbaar yii ci sama ginnaaw sama ndeyjoor sama càmmooñ ngërëm li ñoom ñoo ko moom loolu lañ bëggoon seddal sëriñ bi ñii nag dañoo représenté ab jobbit ci mbooloo mi nga xam ne ñooy ëhlu Seexu Canaba ñi ne ci biir réew mi ak ñi ci biir réew xeebuñu dërëm yéemuñu woon million ngir xam nañ ki ñuy jëfal li ñu bëgg ci moom ndax ba liggéey jote sunu kilifa yaacaaralul woon liggéeyal nanu ba wax alhamdulilahi rabbil alamin amuñu kenn ku ñuy ñee di gis kilifaam naan kilifaam de suñu sañoo suñu kilifa mel ni moom waaye ñun njaboot gi tamit war nañ am jommi suñuy kilifa mooy ñun ñuy jaboot waruñoo xool naan beneen njaboot de bu ñu sañoon njaboot gu mel nii ñu mel ni ñoom kon loolooy jommi ñiy taxaw ñii seen i maam ak seen i baay ñu àndoon ak maam Amari liggéey ba yàlla gërëm leen kon ñoom bu ñu juddoo ci leer googu ak barke googu ñoo defal lima ma amari ndak wat ca watit wala yalla na yalla gërëm leen li nak ñu ngi ciy bu baax bay hasan sek mi nga xamni ginnaw bay bàyyi ahmed tidiane mo ñu joxon digël yalla na yalla yok leeram kérok bi ñu di dem ci mom bay job sek woko ko ni ko sa njabot ñew sek Muhtar mi tay moy la ci lan la wax ñooñu de xawma lu ñuy dox waye bu ñu ñëwee and na ci joxe na ci sama ndigal ñu def lolu ay at mu joge fi Baye Abdourahim ñew dal ni le Serigne Cheikh joxe muy ndigal yeesalat nako def fi 14 mois ak ñun dal ni nabar xamoon nañ du fi yag day barkelu waye Baye Serigne Xasan mi nga xamni moy al alxasan mo wara taral te dañoo jugoon ngir bar barab ma ndak yalla tombalé ko al kon yalla nako fi yalla yagal ñoo ngi presse bi yépp seen taxaway rafet na du tay rek ngeen ñew de liggéey bi da ngeen ko and ak ñun ba TV première téléthon yi ñu doon def ñoo ngi ñoo ma ko ànd kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm sëriñ Alpha Sarr ca bopp ba Sams TV tabaarakallah ñun ñoo bokk liggéey bi waa daaray soppee maam Amari Ndak waaye Daawur TV waaye Thiénaba 24 mi nga xam ne moom Thiénaba 24 mooy Thiénaba ëhlu bi ndax sëriñ Talla Diagne mi ko jiite keroog bi muy dugg ci ëhlu bi ci xaal la ko duggee maa ngi koy fàttaliku ci biir chantier bi muy ñu soxla ndox ay bërigo di daw ndox bi di tuuru ci kawam ma naan kii de moom am na xaal boobu sax miinu guma ko ndekete ci ahlu bi la bokk njabootu maam Amari Ndaag la ndax way juróom wu jigéen maam Amari Ndaag ko jur kon moom ñu ngi koy sant di ko gërëm damaa bëggoon kenn ku si nekk ma jaar ci sa tur waaye sëriñ Ousseynou Ndiaye mii maam góor gu mag dafa waxoon wax ju am solo nee na ëllëgi diine ji ndaw ña ndaw ña sell waaye ànd ak mag ña am xel mag ña am xel mooy ñu mel ni Baye Cheikh Tidiane bu mag ñi ndaw ñi jugee am xaalu liggéey kër gi ñu jàppale leen te jox leen digal ñoo ñooy mag ñu am xel moom dafa bokk ci mag am xel ndax ba mu ndaw ñi laxasaayu dafa jël alalam ni aw ma amna de sama alal di jukki di ñu jox kenn xamul ñaata la dërëm la def ci biir xabru bi kon yàlla na yàlla gërëmal ko te taxawal ko te gën koo sàmm moom njabootam ndaw duñu ay ndaw sëriñ alaaji Seck surtout maam Amari Ndag la ngir liggéeyal ay lu 3 def na ko ci xabru Amari Ndag nekkoon Thiénaba états uni di fa daan dooleem waaye bi mu yëgee ni kat ay ndaw taxaw nañ ngir yeesal liggéeyu mag ñi dafa ñëw ànd ak ñun dugg ci kuréel bi yal na yàlla fayal nu ko sëriñ Talla Xaar ña ngee di turandoo Baye Talla Xaar doon gaynde diine ci liggéey bi soññee moom mbay ñi ngi ak sëriñ ab Ablaye sëy ma nga nekk ginnaaw di jàmbaari maam Amari Ndaak waaye di ko bëgg yonent bi ak mag ñi sëriñ Samba Dia ak ki nga xam ne mooy sëriñ Talla Sarr Ndiaye bi yal na yàlla dëgëral leen Serigne Cheikhou a ngi door a ñëw xam naa daa amoon ay ginaar yu mu doon defar ci ruq bi waaye moom ca début ba ba léegi macha allah selawul yal yàlla gërëm ko Serigne Baye Dame mii day day kenn ci kër gi day sëtub maam Amari Ndak tamit waaye di jàmbaar di ku bëgg kër gi mook bay daam ñaari bay daam yi damay wax ni fan yi mayu ma leen jàmm minute bu ne ma woo leen Baye Dame dem leen ci xabru Baye daam Baye Dame bay daam yi daal yàlla defal leen daam yi di ay ndami ndami sering barang Ndiaye sant wi rek la yak waye tabarakallah mat na sek seuk seuk seuk seuk yak sama njaayeen be serigne Ousseynou Ndiaye ki nga xamni mo dan top sering di len markel serigne Baye Diop Baba zikrullah surtout Baye Diop Baye Diop Baba la Baba Laso mo don mo don laso lasoo jumaa ji ba laso moy sama mam moy mamam kon ndono yoy rek mo fi ne tabarakallah serigne Amadou Seck serigne Amadou Seck serigne docteur euh, historien serigne Ndiaga Seck Moysen, sen molen mo len Tai ci liggey bi tay imam la ci jakk yi canaba yi bi ñuy tàmbali maa ngi ak Baye Jibi ak Modou Fall dox nañ ba toy. Baye Baye Jibi ma ngi ko benn bi sama ko mu ne ma Baye Baye Baye yi ma lakkal nga ma ma umir ndax ndax jar li mané ko sa mam ay bal lañ ko doon jam muy jug di yelbu mu daali di di anima li nga ma wax sol na ma hal te kérok da siburu kon yoy jarna fatali ko yoy taxaway rafetna dañu bëgg kër gi yalla yalla sagal leen tabaarakallaa Serigne Socé Ciss nekkoon sunu biir moom it jàmbaar la woon Serigne Socé Ciss yal na yàlla yokk leeram moom it ci jàmbaar yi nekkoon Europe la bokk Serigne docteur Daouda Diop nekkoon coordinateur international avant Serigne Mortala boroom borom tawféé di ko doon moo ko nekkoon liggéey fa liggéey bu rafet yal yàlla gërëm leen sant leen yokk leen ci zaahir ak ci baatin sëriñ Mor Sarr dama koo bëgg a mujjee ndax ngërëm lépp moom la ndax saa diirug li ñepp nek seeni soxla ñun gamugi, gi nu suñu kër lepp ñi ci biir xabru bi waye maam amé ndaag moy défar suñu kër ñun loolu lañ xam loolu lañ gëmit loolay am té mom mi bo ba légui dara la yor yor kër waye talul dara na xabru bi yegg rek kon mom ñu koy sant di gëreem yor alal ni metté rawal rawal na rawal yor alal njabotu Cheikhou tianaba mom mu yor ko mu sel ñepp contane kon jaajeuf yal yalla gëreem la yal yalla yok say may bay waxna len ba nopi tabaarakallaahu Serigne Sarr ñu ngi leen di gërëm euh, Serigne Ndiaga Seck macha allah ñu ngi koy gërëm moom waaye may ñi ngi ci ginnaaw moom it nekku fi waaye ñi fi nekkul ak ñi fi ne Serigne Ousseynou Ndiaye gërëm naa ko njaayeen yëpp boole naa leen benn ngërëm yàlla na leen yàlla defal ay kër ya kawe kawe kawe ca ngërëm ya joxe bi jaay Seydou Wujju sallallahu alayhi wasallam Serigne Alpha sant nañ la gërëm nañ la kon dañuy jox Serigne Ndiaga Serigne borom yaaram ñang jàmbaari Cheikhou Thiénaba bëgg lu baax moom daayira na baax la bokk mook Serigne ñoo ngi taxaw xabru bi taxaw njabootu Seexu Canaba yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla gërëm leen bi jaay Seydul Wujur salaay salaam kon sëriñ Njaga nga mottali kàddu gi li ci manqué incha allah jërëjëf. aouzu billahi samiil aliim mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim allahumma salli wal xaatimi lima sabaqa naasiril haqqi bil haqqi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 comme ni ko Serigne Baye Serigne Diop defe dañuy nuyu xalifa général bu bàyyi Baye Serigne Assane mi nga xam ne moom ne yàlla dogal liggéey bi di mu jeexee ba ni jébbale caabi yi moom moo aye ñaanal yàlla guddal fanam dolli wéram naa lii mu naal ci diine ji yëpp yal na yàlla may kattan ak wér wërsëg ak mbooloo mu nasewu ba lu ëpp ci liggéey bu màggale ko di nuyu góor jigéen mag ndaw imaam yi chef de village muqaddam yi ñëpp kàddu gi lu ci ëpp moo di sant bu baax a baax a baax cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem jëm ci subhaanahu wa waaye santit ki nga xam ne moo jiite woon kuréel gi muy sëriñ Baye Sëriñ ko nit mënta sant boppam waaye ñun ñi àndoon nag moom doon liggéey wax dëgg yàlla ñun ñëpp xam nañu ni jàmbaar na ñun ñëpp xam nañu ni pas-pasam kenn ëpp ko pas-pas ci dëkk bi fa tabaarakallaahu bàyyi sëriñ yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla dooli sëwër projet bii kat wax dëgg yàlla comme na nga ko junje junje ko ay yoon noo ko bokkoon xalaat euh, maa ngi fàttaliku 2018 la ñu toog buntu kër Baye Talla Dia yàlla yenk ñu xalaat bi ma njëkk cee waxtaan ak Mouhamad Seck bu sëñ Souleymane xaas yalla dogal wax ba xawa dip ñu tok buntu place Cheikh Ndaw ma ci ak mom mu lu ko ni lolu mom moom dañ ci dox ndax kër gi amna ay ndaw yo xamni buñ sumbe loolu dina soti mu solo dalam ñu and duggu ci kër Serigne ci ndek ci ba Diop Seck mu lu ko wo ba Cheikh ñu joge ci gaay yi nga xamni ño bok ak ñom pass pass ci ba ñu wax leen ñom ñep ño adhéré ci ide bobu ñu ci waye ide bu amé ay ndaw yu am pass pass doxal lolu yombul kër gi yàlla dénk nañu ñoo xam ne seen xalaat rafat na seen yéene rëy na te pare nañ ngir jàppale kër gi waaye am na ñu ñoo xam ne pare nañ ngir jiite loola bu xalaat bi amoon te amuñu ñu mel ni Baye Serigne mii ñu war a jiite loola du sotti ndax nangu gi yëg gi mën a fédéré mën a dékk lu bari ndax dégg na lu bari waaye dékk na lu bari daanay daal suñu objectif mooy nañ ko atteindre rek mm-hmm. kon bàyyi sëriñ yàlla na yàlla fay la yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla dolli sa wér di seedeel yàlla seedeel ñi nga xam ñooy waa Canaba mooy nun ñi nga xam ne ñoo sosoon loola mm-hmm. kenn ku ci ne boo xelee xam na ne yokk na ba yëg ni yokk na am déet ñun ñëpp kenn ku nekk ñun ba ñuy tàmbali liggéey bi mm-hmm. am na foo tolloon bi liggéey bi démarré ba fi muy àgg kenn ku ne xam nga fa nga toll kenn ku ne xool boppam sant nañ yàlla ci loolu de yokku nañ ci biir yokku nañ ci biti góor gi wan nañu boppam ci biir wan nañu boppam ci biti dafa am loo xam ne mënuñu ko wax rek ndax dafa muy wane waaye góor gi wan nañu boppam ba tay dikk nañ bëgg a ubbi fii caabi ji réer ñu jekk-jekk gestu gis caabi ji hmm? nit ñëw na fii di julli si bëggoon ñu ubbil ko caabi réew di am ko xaw a kii mu génn dem bi mu ñëwee bunt yi dañu tëll mu dugg ñëw wax ak man loola hmm. ma ne alhamdulilah hmm. am na loo xam ne daal kon képp koo xam ne njabar Serigne Thiénaba santal yàlla ci kilifa gi ñu yàlla jox hmm. sant nan yàlla ci maam Amari Ndaak Seck mi ni yàlla booleel li ñu yéene nag comme ni ko kii waxe mooy tàmbali nañu bëgg ñoo taxaw bépp projet boo xam ni sëriñ bi teg na ko ci loxol kuréel gi daan ci bay suñu waar ak transparence ak détermination loolu ñu jox daal bëgg nañ ca bay suñu waay nun nag ñoo ngi seen biir da ngeen defoon lu am solo moo di kuréel gi da ngeen ko xaajoon ñaar benn bi ngeen tudde ko comité des sages beneen bi ci des ñuy doxal loolee ca la Serigne Bara Ndiaye nekkoon ca laa nekkoon ca la Cheikh Ibou nekkoon ca la Serigne Ba Diop Seck nekkoon ñeneen ñi ci des nekk suñuy rakk ndax ñu ñoo leen féetewoon mag waaye dem na ba liggéey bi ñun ñëpp ñoo ci bokk nekk waaye nag am na ñu ci gën a nekk jàmbaar moom mi ca jàmbaar la bokk kon kàddu yi mi ngi bari sant nañ ñëpp gërëm nañu ñep yalla na yàlla dolli jàmm ci dëkk bi yalla na yàlla gëna a nose xol yi yalla na yàlla bëgg-bëgg yu nu am yal yàlla dëkkale xol yi huwa al-mustafa jiddun nada sidqu lahu huwa al-mustafa jiddun nada وكابد فيه القلب للبعد شجوه فأقسم ما إن كان درى البين صفوه وما وخدت عيسول ملبين نحوه بأدوع من شوق تلقره من نحوي abonné ci seen chaîne YouTube. Shamsu TV jant bi leeral àdduna. te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran. ñàkk cee abonné dafa wóorul. fii fi abonné da nga abonné wu ci yonent bi abonné ci yàlla. te yàlla nag fekk kaay jàpp dara naan yàlla kaay jàpp ci fekk lu yàlla jàpp nga jàpp ci moo TV